depuis soixante dix na maa ngi koy bind xam nga koy bind journal di ko jaayee di ko jënd da ngay wax na bokk te plus tijaan que moi tu meurs man day tijaan bàyyi tijaan maam tijaan may joxe tarixa tijaan samp ay muqaddam na ngeen yaru nee na nun bëgg taalibi na nu boo àndandoo yaru bàyyi sëñ Tuuba yàlla ma moom marchandise teg ko ci loxo rasulullah yi mu jox ko. nee na maam borom Touba yàlla fab marchandise am teg ko ci loxo rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko ko. Serigne Touba li mu wax ne moom la doon moom dafa ne abdullahi wa xadimu rasulihi moom la doon loolu nag may yàlla joxe yëpp moo ci gën a kawe. nee na baat bii nag mu mujj a wax. Serigne Touba kenn la. ne Serigne Touba kenn la de. sama baay moo ne. Cheikh Amadou Bamba alquran dafa ñëw pour firi la. wal jalaalaani. tafsirun liman sibikum. alquran dafa ñëw pour firi la yow. waxuma lu ëpp. wax rek laa nettali. ñu ne ko mooy kan. mu ne misbaaxu ilmin ka dawi subhi lammaay wax dëgg yàlla war na noo nangu nag nangul na ko yàq dara nee wax naa ko te waaye foo ko nee foo ko boroom jaarale nee jaarale fa nee loolu tax muy kenn ni ko xaadimu rasul dafa nekk lu béykémaan yajuudu yajuudu li jawaada maa laa yan fadu wa kullu maxluqin siwaay yan fadu nee na ku tabe ci tabeel na ma ba jox moo dul jeex ku dul mën nag di nga jeex la waaye man xaadim sama bërëb du jeex xanaa suñ koy xëy mu yi danañ ko ndax fu fi waay nekk bu doon benn butéel nga fa teg danañ la fa song bu doon benn bant danañ la fa song boo fa doon kenn di nga doon dem ba dem fa mbooloo ñu doy sëkk kon sunu borom mi nga xam ne mooy joxekat bi moo ko jeex loolu jarul la am benn sikki sàkk ne euh, xaadimu rasul li ko yàlla may moom dong la ko may mu yore ko alquran ci am benn façon bu pirine traduction boo xam ni moom rek la ko yàlla baaxee ci jamono ci li ma gis ndax dañuy firi alquran di wax naan xaala wax na allahu yàlla nangam nangam di firi baat yi di firi maanaa yi moom nag benn baatu alquran lay jël tas araf yi bu see foofu may waxu kaana xaqan alayna nasrul muminin waaw wa way la kaaf ja way la liif ba way la nuun ga way la loolu lu bees la Cheikhul Xadim radiallahu anhu ci sama gis-gis bu gàtt ak bu ñàkk solo ci buñ ko dendale gis ki ñu xam-xam yu mag yi moo di ne cofeelam ci yonent bi alayhi salaam yebul rek ci li nga xam ni tubaab dañ koo baaxe woon bu ñu duggee réew mu jàmbur jël seeni turi maam seeni turi eero tudde ko réew yooyu te loolu feeñ na ci suñu capital yi Cheikh Khadim wane cofeelam ci dëkk yi mu sañ nga gis daaru salaam gis daaru nangam te benn bu ci nekk tur yàlla la benn bu ci nekk mu ngay wonee ci li nga xam ni itam moo di juróom-ñeen fukki tur yi ak juróom-ñeent yi nga xam ne attribut la yu jóge ci borom bi subhanahu wa taala daarul kafuur daaru salaam loolu itam waxuma moo jëkk africanisé waaye moo jëkk islamisé ay quartier islamisé ay village bu ñu koy dëkkee nag dafa war a am toppatoo boo xam ne amul fu muy yem moom moo tax liggéey Sëriñ Tuubaa moo ci gën a mag te xam-xam bu noox amoon ak sañ jox nañ ko sëñ Touba ndax kuy def maintenance da ngay xam xam-xamu fondation buy waaj a yàqu ak buy toj ak buy waaj a kaw ndax lu ko mooy fondation dana daanu te doo ko mën a defaraat xam-xamu Seydina Ibrahima ak sañ-sañam am mbóotam jox na ko Sëriñ Tuba ndax moom it lam tabaxoon ak lam liggéeyoon Sëriñ Tuba moo war a yor maintenance Moussa ak Isa la leen joxoon Sëriñ Tuba baatin ba daf koo yor ak xam-xam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam it mi tëj lépp yor caabi ji dafa fab tabax bi jëppal ko Serigne Touba ne ko bu ci dara dugg lu ci bokkul bu fi dara génne lu ci bokk te lu yàqu na ko defar moo tax Serigne Touba wax ne nazaani min alwara albaaqi alqadim allamahum bi annani alabdul xadim Sëriñ Tuubaa nee na yàlla daf ma setti ci bindee si joteetuma ak ñoom xamal na leen ñoom ñëpp te danañ ko ma a xam ne man al abdul xadim moom laa doon mu dellu wax ne qad insarafat xaaji ila fatiqi rafqi wa inni lahu abdun wali jaada bil itqi mu ne damaa jox sama borom sama lépp moom itam li ab am lépp muy goreel mu def ma waaye kuy waxal na nga waxal yàlla gaay fukki sëfoor ci benn kaar benn sëfoor ay dawal bambaax ne sëñ bambaax ne sëñ bambaax ne sëñ bambaax ne sëñ la de nee sëriñ Tuubaa kenn la de Serigne Touba kenn la. nee Serigne Touba kenn la de. Serigne Touba benn la. macha allah sama baay li mu bind Serigne Touba benn nit bind ko. moo ko ne yow doo nit yow alxuraan ji dox la. ku la laal laal la alxuraan. sama baay wax na ma. ci Serigne Touba loo xam ne moo ko waxoon ci texe gi mbir bi bëri dañuy xam. waaw fekk na waaye nee na ma yegg na ci yàlla foo xam ne. kuñ ko tëkkaleen nax nañ la kuñ ko tëkkaleen nax nañ la kuñ ko tëkkaleen nax nañ la kuñ ko tëkkaleen nax nañ sax ci jaamu yàlla man ni ma koy waxee waxi taalu bi waxi daanu kat ni ma koy waxee mooy sax ci jaamu yàlla liggéeyal ko sëriñ bi sax ci liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla loolu waxi daanu kat la waaye maa ko wax waaw te te te te du du ma ko rëccu rëccu bi wër si ma ci dara. nan sax ci jaamu yàlla sunu kem kattan liggéeyale ko sëriñ bi nan sax ci liggéeyal sëriñ bi ci sunu kem kattan jaamoo ko yàlla man man maa xalaat loolu. sama sama yëf yi daan na man murid moom faaw moom faaw faaw faaw génn. wóolu sëñ Tuubaa rek gëm sëñ Tuubaa rek. jërëjëf koo xam ne su borom nam na ci yow ak texe ëllëg taw sa xol dana ma jublu. kon nee naa la bayit bi jar nañu murid yi. ñu sax di ko sant ba faatu. jërëjëf suñu borom suñu borom jërëjëf suñu borom suñu borom. quluubu jumlati llazina aflaxoo liyatawajjahat wa rabbil muslihoo. xol yi ñaar taxe ñëpp ñu ngi ci man Ahmadou Bamba. jërëjëf suñu borom jërëjëf suñu bam qulubu jumlati allazina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu xol boo làmb xol boo làmb fekk ci Amadou xol boo bàyyi ka nar a texe xol boo làmb fekkoo ci Amadou xol boo bàyyi ka nar a texe di alhamdulilah nan sant yàlla bu baax bi suñu borom boole sëriñ Tuubaa muy cër bu mat sëkk tey kaw kaw foofa kaw ak doon alaxira nan sant bu baax a baax a baax nag. sant sëñ Touba rek sant sëñ Touba rek. jërëjëf sëñ Ba. ñoo xam ne sëñ Touba rek la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar ëllëg wóor ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek la ñu ko def.